lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yonen sa soppeng doo jëfe ndigalam ni yàlla sa buur doo sàkku ngaramam samil alim min ashaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli qaala tacaala wa idaa jaaka alladiina yuminuuna bi aayaatina faqul salaamun aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ganaa loon mbokk yi incha allah dañuy ziaraat mbokk yi di leen nuyu di ñëwaat ak yéen seen émission ci li nga xamante ne moom mooy aalamul jinn wa shayatin aalamul jinn wa shayatin muy monde jinn yeeg seytaane yi mu nekk ab monde bi nga xamante ne ñu nag ñoom ñoo bokk fi nga xamante ne foofu la nekk muy jinn yeeg seytaane yi ñoo bokk ci planète terre bi nga xamante ne ci lay nekk mais yàlla si borom dafa def ab kiiraay suñu bët ak ñoom ñoom ñoo ñuy gis mais ñun nag duñ leen gis waaye nag ñoom dañuy jëflante ak ñun ñun tamit dinañ jëflante ak ñoom ci yenn kaay moo taxoon ñu daal tijji li nga xamante ne mooy monde jinne ak seytaane képp ku ci bëgg xam lan mooy jinne ak ay mbiram yi nga xamante ne dina ko def soo lañu toppee ci aalamul jinn wa shayatin di ngeen mën a xam yu bari ku leen koy defal nag mooy seen mbokk ci yàlla di ab seen ndongo daara mu Ibrahima Diaw tey nag incha allah mbokk yi dañu tijjiwaat beneen bunt ci aalamul jinn wa shayatin te bunt ba moom mooy anwaaul jinn anwaaul jinn mooy façon jinn yi mbokk yi jëloon nañ li nga xamante ne mooy alfarqu bayna al jinn wa cheytaan wa iblis lan moo séparé diggante jinn ak cheytaan ak iblis tey nag incha allah dañuy jël li nga xamante ne moom mooy anwaaw jinn façon jinn yi ndax jinn yi ay façon yu bëri lañ wala ñoom benn façon rek lañ comme doomu aadama ni mu nekkee benn façon bopp ñaari loxo ñaari tànk hmm, am gémmiñ ah bët ñaari nopp noonu la ñu xamee li nga xamante ne mooy doomu aadama mu nekk ki xamante dafay taxaw di dem di ñëw jinne yi ndax ñoom façon boobu lañ su fekkee li xamante ne moom mooy façon jinne yi nag ñu xam ne dañuy uteeg doomu aadama yi dañuy uteeg li nga xamante ne mooy doomu aadama yi comme nu bàyyi may uteeg li nga xamante ne mooy doomu aadama yi waaye nag jinne yi lu ñu ute seen ay façon ci wàllu mbind yént bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xibaare moo ko leeral yént bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bi nga xamante ne xaakim solo na ko ak bayhaqi ak ki nga xamante ne mooy tabaraani ci xadis ki nga xamante ne moom mooy abi saalaba alxashani qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aljinnu salaasatu asnaaf nisfun lahum ajniha yatiiruuna fi lhawa wa nisfun xayaatun wa aqaarib wa nisfun yaxiluuna wa yasanuun ci xadis bi nga xamante ne xaakim solo na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jinne yi ñetti façon la ñett ñetti façon lañ mu ne am na ci façon jinne yi nga xamante ne ñoom dañ am ay laaf hmm? lahum ajniha la yonent bi wax ne dañu am ay laaf yatiruuna fil hawa dañuy naaw ci jaww ji kon loolu noonu ci façon jinne lañ bokk mooy am na jinne yi nga xamante ne dañu am ay laaf di naaw doomu aadama nag amul laaf beneen bi tamit du naaw kon foofu ute nañ foofu noonu beneen bi mu ne am na ci beneen façon mu ñaareel façon yi mooy ay jiit lañ ak ay jaan am na ci jinne yi xamante ne ay jiit lañ ak ay jaan hmm? booba ñaareel façon bi ñetteel façon bi nag yi sax nee na ñoom nag dañuy feeñ di nëbbu maanaam ñoom dañuy dem di di ñëw bi maanaam paysaa dañuy soppaliku leneen paysaa ñu nëbbu paysaa ñu feeñ paysaa noonu lay mel bi maanaam am na ñi nga xamante ne si ñoom day mel ni comme ñun ci ay façon mais dañuy dañuy soppali ko pensaay moo tax pensaay ñi nga xam jinne ñi nga xamante ne dañuy fa di jommal nit ñi pensaay yooyu lañuy def di soppaliku pensaay ñu soppaliku nàngam pensaay ñu soppaliku nangam façon fekk ci jinne yooyu lañ bokk isaas ma ne façon jinne yi ñett yi nii ñoo ci am façon yooyu noonu nag su fekkee bu njëkk bi mooy yi nga xamante ne dañuy naaw yàlla si moom junj na ko ci biir alquran yàlla dafa wax ne ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب صدق الله العظيم yàlla dafa wax ne ñun ñoo taaral asamaan ci ay li nga xamante ne mooy ay biddéew waaye nag ñu def ko mu nekk li nga xam ne dafay sàmm di di di wattu bépp seytaane bu féeteerlu mun ne ñoom lu ñu dem ci kaw asamaan yu kawe yi lu dul ne dina leen sànni li nga xamante ne moom mooy ay jumbu safara foofu noonu dafay saxal ne li nga xamante ne moom mooy ñoom mënuñu dem ci kaw asamaan lu dul ne dañu amoon ay laaf waaye nag ci beneen xadis yi saa sallam melal na jinn yi na ñoom dañuy teglante def yi saa sallam daal def li nga xamante ne mooy baaraamam yi nii kii day ñëw taxaw kii yéeg ci kaw ba ci kaw asamaan su ko defee ñuy déglu information yi nga xamante ne malaaka yi moom lañ jokkalante seen seen biir moo tax jinne ci sootul jinne ñoom ñoo wax ne wa annaa lamasna as-samaa fa wajadnaaha fa wajadnaaha muniyat xarasan shadidan wa shuhuba wa annaa kunna naquudu minha maqaacida lis-samia faman yastami alaana yajid lahu shihaaban rasada sadaqallahu alazim yàlla dafa wax ne jinne yi nee na ñun de daal nañu toog ci kaw asamaan di fa dem hmm? su ko defee ñuy toog foofu noonu di déglu ay information léegi nag ku fa dem di déglu dañ lay sànni ay jumbu safara kon jinne yi dañu doom yéeg di dem am nag beneen nag bi nga xamante ne ah li nga xamante ne mooy jinne yi dañu am ay li nga xamante ne ñoom dañu nekk ay jiit ak ay jaan ci xadis bi nga xamante ne mooy xadisu abi saïd yént bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna bil madinati nafaran min al jinn qad aslamu fa man raa cheyan min hadihi al awamir fal yuazinhu salaasan fa in bada lahu baadu fal yaqtulhu fa innahu cheytaanun nee na li nga xamante ne moom mooy fii ci Medina dafa am ay jinne yi nga xam ne dañ may di ziyaar si dañu fi fa di ñëw te dañu te ay jullit lañu tuub nañ paysaa dañu ñëw soppali ko ay jiit ak ay jaan waaye nag képp ku gis ci mbir yooyu noonu ci mbir yooyu noonu dara mooy di gis ay affaire yu soppaliku ci biir dëkk yi wala ci néeg yi na ko daal di ah affectir affectir maanaam na ko daal di koy ah wax na ko génnal fii boo mat ñetti yoon waaye nag su fekkee bañ na génn mooy ne ko rey ndax loolu noonu seytaan la. beneen façon bi nag mooy ñi nga xamante ne dañuy fa di feeñ ak di nëbbu kon mbokk yi ñetti façon yooyu noonu ñu am ci jinne yi jinne yëpp ci façon yi lay mbokk immaa ñu am ay laaf immaa ñu nekk ay. li nga xamante ne mooy yeneen am ndax am na sax beneen xaddis yi sax dafa wax ne ak xaj jiit ak jaat ak li nga xamante ne mooy ay xaj dañuy fa di nekk genre yooyu noonu kon mbokk yi soo leen soppee ci aalamul jinn wa shayatin di nga ci mën a gis xam li bëri li nga xamante ne mooy ci aalamul jinn wa shayatin wa jazakum llahu xayra assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko lislaamaa ngi suux jug leen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jug leen daalal ko sa buur doo sàkku ngaramam yoneen sa soppe doo buur